nga ne yow jox nga Macky Sall sa kàddu jox nga ko carte blanche après nga déclarer sa candidature pire encore ngay campagne. nan rek. ah <laughs> man de non yow laa am si plateau bi. ah waaw mais. ngay campagne Macky Sall ne toog leen wow na leen réunion sax mu ne bàyyi leen lépp. du dégg li ma fa wax. mais nga continuer waaw du dégg li ma fa wax. dama ko ne da ne ñu toog ñu toog ñu am mu am ñeneen ñuy campagne kon nag léegi ñi bëgg jaay seen bopp réew mi tamit dañ koy jaay. mais loolu warul warul nekk problème ci moom parce que il est assez renseigné aussi. mais xanaa yow doo nitu kàddu. mais man. nan nga jàkkaarloog sa kilifa nga ne ko nekkatuma. non may mun a dégg maa ngi lay déglu a pour pour la vérité historique. waaw ñoom bu ñuy dajee bu ñuy daje di wax ni président tànnal ñu nekk sa ginnaaw man nekkuma fa. la réunion du secrétariat exécutif national bi weesu après sa déclaration man nekkuma foofu. déedéet donc man joxewuma kàddu ah joxewoo kàddu il faut mu leer non ku fekkee woon nu muy kàddu joxe eh, kàddoom déedéet na leer ah. kenn du ma ci weddi nag ci réew mi parce que dégg naa sax ñeneen di wax ni man damaa yëkkati woon sama loxo man de kon xam naa ne li tubaab bi doon xam la don d'ubiquité dama ko am maanaam ma nekk fii nekk foofu yàlla xam ne nekkuma woon ci réunion secrétariat exécutif national bi nga xam ne ñu ngi doon wax ku bëgg nekk candidat na na samp ndënd donc yow eh, joxewoo kàddu jàpp nga ne trahiroo benn dem rek ci diggante bi ñu boole ma ci waxtaan bi mais benn yoon bi nga xam ne fekkee na waxtaan bi mooy bi ñu suñ jiit coalition woowee mooy président Macky Sall au palais de la République li ma fa wax wax naa ko fa. te li ma wax laa gëm. lan nga mooy dama gëm ni d'ailleurs du man ah du man rek il faut que ça soit clair parce que apparemment dañu wax waxu charte mais ñi fa nekkoon tout le monde personne n'a d'abord signé une charte il faut que mu leer en tout cas dans pas dans la pas pendant la plénière. gisuma fa kenn ku fa signé charte parce que y a eu beaucoup de débats autour justement de ce qu'on allait appeler parce que y avait président il était assez gêné parce que njaboot dafa neexul a àtte loolu da ngeen koy comprendre parce que ku xam Macky dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg xam na ni mënul àtte parfois yenn situation yi parce que humainement dafa am rapport affectif bu muy am ak ku ne donc bu mu ñëwee ne moom mënagul tànn ndax xëccoo bi bëri na wax ji bëri na mais nañu ut pexe pour que ñu xool avec un scrutin qu'on va organiser une sorte de primaire mu définir benn corps électoral ñi wax ñëpp d'accord ñu woon ci mécanisme boobu déjà. monsieur. non non non. Boun Dionne a dit que il veut il a la légitimité mais bu ko Macky Sall tànnul ku mu tànn dina ànd ak moom. Amadou Ba a dit la même chose Ablaye a introduit des condition Aly Ngouille a introduit des conditions. yow. Abdoulaye Daouda Diallo n'a pas introduit de condition. non wax na. je suis très sérieux Abdoulaye Daouda Diallo n'a pas introduit de lu mu def bu introduire condition. il a dit la même chose il a dit la même chose. te ku président tànn dina ko kii. la wax yow ensuite. nga le ministre non avec non, le ministre Aly Ngouille Ndiaye a dit que le scrutin allait être parce que soo tànnee les députés les maires les les conseillers économiques comme une sorte de de de d'électeurs bu boobaa tamit peut-être que dina am benn préjugé favorable bu député bi di amal soo président de l'Assemblée nationale qui était candidat n'est-ce pas dina am préjugé favorable bu ministre di amal son premier ministre dina am préjugé favorable bu conseil économique di amal son président de conseil donc moom mu ne il n'est pas d'accord sur le mécanisme des primaires et moi j'étais d'accord avec lui et c'est comme ça que le débat contradictoire man li ma fa wax mooy ndegam ñëpp a waxoon ni dañuy tënku ci kàddu président Macky Sall te gis nañ ni kenn tënkuwu ci parce que moom mii wax na ko wax naa leen ngeen toog xaar ma ma gis ku ne di promouvoir boppam di promouvoir candidature am situation bi métti na ci man noonu la ko waxee donc vous enfoncez une porte ouverte tout le monde était au courant des désaccords et que ñoom li ñu tënkoon en secrétariat exécutif nationale te fekkeewu ma ko en tout cas ñu ci et maintenant moi je aussi que bu boobaa c'est qu'on n'est pas loyal au président de la république su dee mënuñu tënku ci luñ suñu kilifa wax mais waay waaye nag nañ dem jéem xool sénégalais yi atte ñu et c'est ce que nous sommes en train de faire. donc jàpp nga ne jàpp nga ne kenn tënkuwul ci li Macky Sall wax donc ngeen léegi da ngeen di topp Macky Sall ngeen dem solliciter l'arbitrage de sénégalais mais on n'en ne pas là. on en sera là fatalement xam nga lu tax la coalition. de la majorité présidentielle est énorme et mois je suis certain qu'il y a des ah, yi nekk ci biir man wóor na ma ne am na ñi nekk ci biir yi nga xam ne dinañ présenter seen candidature ay partis politiques alliés donc mbir mi da nga prédire l'implosion de la majorité non déedéet ñoom wax nañ ko ba pare parce que ñoom nee nañ am na ñi nga xam ne ñoom bokk nañ ci majorité présidentielle taxaw nañ ne ñoom pacte bu ñu amoon président Macky Sall la ñu àndaloon ndegam président Macky Sall nee na bëggatul que sampatul ndëndam ñoom dañuy dem dellu ci seen i base lu seen base wax ñu def ko lal loolu nag di lay njortal ne di nga dégg ay parti politique wala ay mouvement yi biir yi nekk ci biir majorité présidentielle yi nga xam ne dinañ samp seen i ndënd